وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياك يسري عبد القادر ما شاء الله تبارك الله آه، يعني جي قبل جيد يعني جي قبل جيد وخمنا آه، دخ أكبر كان كبير من سلطة الرحيم وعليكم birrul waalidayni mu ngi ci biir kon nag liggéeyub lislaam rek lay mën a doon euh, taxawaay bi rafet na lool moo tax li may baamtu jamono yene di leen ko dégtal mooy mbir mi am nii am na njariñ lu bare bare bare bare lu ci jóge de man ci sama wet loo maa ngi koy jariñoo ndax nit ñu ne gumm rekk jàmm di am mën ngaa bañ a xam yi nit ñi ak seeni martaba fa yow nga yemale leen te fekk ndekete yemuñu lii nag tam xiis boobu yi alxuraan di wax moom def na ko nit ñi gën a leen xamaat bu baax xam catégorie yiñ doon mu ñi taxaw ànd ak dëgg te yéen ak ñi ne cel ak ñi nga xam ne dañoo taxaw contre ñooñu nag kenn ku ci ne martaba nga nekk boo xam ne wax dëgg yàlla jar na nangul ko boroom bu baax a baax jox ko ko itam Ousmane nag loolu yi mu la wax ne naka jekk taxawaay bu mel noonu la am wax na dëgg am na ay mbir yu fi jaar yoo xam ne jaar na fi jaaraat fi waaye benn bu ci nekk taxawaay bu mel noonu la am yëg naa ne am na waajoo xam ne sax dafa wax ay kàddu yoo xam ne kàddu yu ñaaw la waaye dafa waaxu ba fekk ko këram ne ko ndax lii ma dégg nii ci téléphone bi yaa ko wax mu nakk nakkal mu nekk boo ko waxatee bu ëllëgee fii nga nekk foofu laa lay fekk def la nangam ak nangam mel ne kooka daa jégglu moo tax tàngoor woowu mu ci xaw a boole noonu noonu lay doxe waaye bu jaxasoog yéen ak euh, ci sët yi ñi nga xam ne bokk ngeen ak ñoom xalaat su ngeen diisoo rek da ngeen am ay solution yoo xam ne moo gën solution bu jëm ci wàllu doole noonu li nga ko waxee lu wér la maanaam consultation yooyu muy def lu aaja xóotal la bala ngaa wóolu nit ba boole ko ci groupe bi war naa doon koo xam ne amuñu ci moom benn sikki sàkk maa sax di jël audio yi ngeen waxtaane di leen ko jox euh, amoon na lu ko gën a simple mooy def ak ujub boppam boo xam ne la ciy wax rek ni yow sëñ bi yow gannaaw buñ la nuyoo ba noppi fekk kenn day doon boo xam ne dana ko mën a jox ku nekk mbir mi xew te aju ci nangam ak nangam ak nangam aju ci sëñ diw sàngam ay gone di génn di ci am yu muy wax yoo ne ci biir kër gi lañ bokk yow loolu lu ci sa xalaat ak noo ko gisee su ko defee kooka tontam des na ko mën a jàpp dooru continuer moom nag di xóotal leneen li ca des dégg naa ñim lim waaye na ca boole euh, sëñ moodum sëñ Ceerno gone la du gone waaye it boroomum xel la te position bii ngeen yor rekk moom la yor waaw kon daal ñu ngi leen di ñaanal borom bi tabaraka wa taala defal leen tawfiq sàmb leen may leen ndam ci liggéey bi ngeen di liggéey ndax liggéeyu boole ak bokk la waaye liggéeyu défendre dëgg la itam liggéeyu yar itam seeni bokk la ndax léeg-léeg mag dana dem ba nekk mag ñi door koo yar jàpp naa ne nag loolee ngay junj ñu dem ci yoon laaj na ay jéego door caa àgg defe naa ne jéego ba ci jiitu mooy ñi nga xam ne dañuy waxta seeni ndey nekk fi yebal ab délégation bu xellu ñett wala ñeent ñu ànd ba ci ndey ku nekk toog ak moom ne ko diw sàngam ndax li muy wax yaa ngi koy dégg boo waxtaanee ba noppi jox ko avertissement ne ko nag danoo bëggut a jekki-jekki nga dinu dégg ci yoon te jaarunu fi yow ndax suñ waajur nga waaye nag kee muy dal ci kawam su ca delluwul gannaaw da nga nu dégg ca yoon su ko defee loolee waajuram bu jigéen yëg ko ak comme ca mën a doon loolee lu am solo lay doon te bu déggee baatu bi yoon boobu lu man ci wax ak moom dana ko def waa kay jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa